ak ku mën a doon ñu lay fàttali ne euh, jongante bii ñu jëm du du du du rayante du du du du boddiwante du xeex boo xamante ni euh, bu bu ñàkk solo lay doon waaye dañ koo war a def rek ci benn fair play boo xamante ni bu solo côté donc du coup alors euh, peut-être que ce que les gens n'ont pas compris c'est que ja euh, mon si si législative nga le euh, parrainage donc mm-hmm. pourquoi mm-hmm. heureusement que nous du pour pour mm-hmm. pourquoi donc sentir le besoin de dire que bon ni wa pour nekk si assemblée nationale peut-être pour autrefois parrainage ils n'ont pas à être sur le terrain mais c'était pas maladroit voilà xam nga tey am dem élection vous suivre li euh, sûrement ma langue, koy xol li xew un peu à l'international souvent da ngay gis euh, candidature yo xamanteni ni euh, dal na rek France ci sen élection bi ku Philippe Poutou ak Éric Zemmour Éric Zemmour par exemple dem na ba mënul a am les les soutiens des des des maires moy ñi nga xamanteni waron nañ ko signature les signatures mais à un moment donné le président de l'association des maires de France mom mo wax né hey ki kat comme jaay na ci ci parti politique am nañ adhérents kon sa voix mérite d'être entendue même bu fekkee né limi wax sax amul solo français yi xamné ki kat limi wax amul solo au moins ñu xam ko donc ces candidatures là dañ dañ leen wara war a bàyyi ñoo xamante ni am nañ ay borom xam-xam nous avons des profils très intéressants ci candidats yi nga xamanté actuellement ñom ño nekk en lice té ñoñu japp naa ne dañoo war bokk ci élection yi donc ñun taxul ñun cette cette question elle est derrière nous parce que japp nañu né liggéey bi ñu def euh, depuis 22 avril 2022 bi nga xamanteni mom lañ duggé politique dafa la suñu jot dama lay jox un exemple biñu dem ci élection législative nous nous n'avons pu faire campagne que dans 22 communes sur les 557 campagne la wax de waxuma présence mhm. euh, sur les départements nous n'étions que ci ci 8 départements lañ nékkone sur les 45 départements sur les 46 départements maintenant avec Kermassar. donc euh, te bi ñu demee bi ci dox nañ dox boo xamante ni parce que bi ñu jàllee ci euh, élection législative yi euh, conseil constitutionnel daal di proclamer le 4 août installation bi nekk le 12 septembre ñun 4 août bi ñu bi ñu bi ñu kiyee rek bi ñu bi ñu bi conseil constitutionnel déclaré ne nekk ngeen candidat ci saa si la ñu solaat suñu dàll duggaat daal ne fépp fu ñu amoon yéene dem fa dinañ fa dem euh, te jotuñu fa woon dem fépp fu ñu mënul woon a dem fépp fu ñu demoon tamit dinañ fa dellu et je le rappelle très souvent gourgo xamanteni ma nga nek fele ci xombol Saloum j'ai plus de 70 ans c'est la première fois may gis kuy wut am daldi am ba pare et c'est comme ça que nous avons parcouru euh, xam naa may suivre bu à travers les réseaux c'est comme ça que nous avons parcouru le Sénégal et am chance sax dem ci international fu ci que ñu dem fa taxaw fa waxtan ak sénégalais te boobu 12 septembre jotagul lolu moñu un résultat impressionnant et résultat sur les 557 communes aujourd'hui du Sénégal. nous sommes dans plus de 400 communes. les 46 départements nous sommes présents dans les 46 départements dans les 14 régions et dans plus de 400 communes officiellement là bas et sur la diaspora nous sommes. partout parce que résultat élection législative yi le que les serviteurs après les deux grandes coalitions Benno Bokk à l'époque ak a Askan les serviteurs ñom ñoo ci tollu par sur les 8 listes qui étaient en lice ñun euh, on s'est retrouvé avec 56 303 voix alors que ci ci parrainage bi fof ñong ngi doon ñu demander 34000 voix donc on passe le parrainage et on se retrouve avec 56 303 voix ce qui est inédit, Néné, dans l'histoire politique du Sénégal, un mouvement politique qui déclare sa candidature à trois mois d'une élection, euh, am 56 303 voix, Moussoul am, qui Sénégal, Donc, am, légui, bin ci nak, affaire bi Sénégalais djelal ko Et aujourd'hui, on n'a presque pas de temps pour nous, on reçoit énormément, on se déplace énormément. Donc, bini wax parrainage, c'était pas pour nous. C'était par rapport à l'élégance. C'était par rapport à l'élégance républicaine. parce que la république c'est l'élégance on a par rapport à la justice a manque d'élégance là. de part et d'autre république du loo mën rek république élégance la république promesse la dinañ ci ne ci on prône une démocratie une démocratie conflictuelle une démocratie apaisée démocratie conflictuelle mooy lan mooy Néné Aïcha depuis 1961 la ñu am des bureaux de vote qui sont brûlés au Sénégal 61 à Saint-Louis Egon nañ ci da ngay à l'époque rek eggoon nañ ci da ngay tuddee sa xar tabaski da nga koy sa adversaire politique rendi ko tabaski bi. démocratie conflictuelle bobu mo jur li xew en 62 17 17 décembre 62. moo jur li xew diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade moo jur li xew diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ak euh, Idrissa Seck ak Karim Wade ak Khalifa Sall ak Ousmane Sonko démocratie conflictuelle boobu dañoo gis ne mënta tere sunu géej gi nekk ay sëkk pour xale yi mënta tere. sunu désert bi nek ay seuk mënta téré chômeurs yi dëkk bi chômage bi atteindre des niveaux insoupçonnés nit ñi amuñu école yu bax amuñu hôpital yu bax amuñu service du. je pense que même ça on va y revenir. léegi légui nak dama bëgg. nga bal ma rek ma conclure fofu légui dama bëgg ñu joggé ci démocratie conflictuelle bobu té loolu lañuy proné à partir de 2024 ñëw nak bi nga xam fay opposé ay gladiateurs ñu ñëw nak ci une démocratie apaisée bo xamanteni nak nag fay opposé rek ay projet ay vision ay programme bo xamanteni meun nañu wouté xalat té duñu téré ñu sauvegarder l'essentiel, comme ni ko mam Abdou Aziz Sy jàngale radiallahu taala anhu moy l'éthique dans le désaccord. et je pense que on demande plus d'éthique en politique. est ce que pour ñu dem ci démocratie apaisée bi ngay bi wax est ce que ça ne passe pas par une élection libre euh, transparente et, et inclusive. Parce que euh, pourquoi cette question On a vu ce qui s'est passé fële les DGE avec euh, le cas Ousmane Sonko euh, qui soutient mordicus que écarté ko écarter ci élection présidentielle est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que c'est ce qui se passe est-ce y y a ni que assister à une élection inclusive nous avons décidé de vivre en république république c'est un état de droit état de droit suñ lui-même doit se soumettre au droit L'État lui-même doit appliquer le droit L'État lui-même doit transposer le droit donc lol moy ñett yi nga état mënu ko de droit et dans le cas d'espèce, nous ñun dañu une élection libre démocratique régulière et transparente loolu mom moy aspiration république ak état de droit droit aspiration la bo xamanteni chaque fois dans les nañ lañuy def ba mu gëna amna luñ dans les années 70 dans les années 80 dans les années 2000 ba 2012 mille bu fekké né dañuy gis ay vieux démons yu renaître gars yi mën nañu né attention et dans le cas d'espèce ñun dañu japp né effectivement comme niko borom xel yu sel yëpp waxé la DGE fait transgresser li nga xamanteni mom moy ay pouvoiram donc jox. dafa taxaw ci posture ku violer la loi en quelque sorte. jàpp na ne dafa def lu dafa jéggi dayo par rapport ak li nga xamanteni mom lañ ko doon sante et li nga wax non effectivement sentiment bi nit ñi di am moy une volonté manifeste d'écarter un adversaire politique té ñun acteur politique yi nga xamanteni ñun ño sank ñun ño langue politique bi li ñu bëgg moy ñu bàyyi ñi nga xamanteni remplir nañ les conditions de part d'une participation ñu mëna participer aux élections présidentielles à partir de mais lan moo war a rôle euh, opposition bi dans ce sens parce que euh, on a vu euh, wa Gëm sa bopp ñu ngi doon soulever benn point par rapport justement à ces clés USB qu'on a eu à distribuer aux candidats ñu dégg ne que peut-être fofu opposition bi waron nañ def bloc peut-être pour récuser l'idi di DGE yo lan nga sentir que opposition bi mais l'opposition est dans son rôle. Néné moi je pense que l'opposition joue son rôle peut-être que nit ñi mën nañu wouté ay de lutte. mais l'opposition joue son rôle. mais faire bloc par rapport à certaines questions. oui oui nit ñi mën bokk bokk aussi niñ koy waxé ak niñ koy défé amna ci choisir nek en front office d'autres en back office dans un combat gëm sa comme nous l'avons ko le fait très bien à travers euh, les médias ak c'est très bien donc pour moi, les gens se partagent le boulot pour que nous permettre Il y' a beaucoup de victoires yo xamanteni opposition sénégalaise am beaucoup de victoires Beaucoup na le fait que le président de la république renonce à une troisième candidature donc il y' a beaucoup de victoires y opposition sénégalaise daf ci am taxaway bo xamanteni ni bu mucc ayib la dal ne li kat dundu nañ ko 2012 mënatuñ ci dem heureusement que euh, le président Macky Sall suivre na la direction du vent ci moment bobu nga xamanteni ni nañ ne la euh, la décision la plus sage mais encore une fois je pense que ne opposition sénégalaise lepp lu mu def dina ko def parce que li tax opposition sénégalaise ligeyem di yomb ci contexte bi moy peuple sénégalais ci bopam à partir du 31 juillet dafa am tendance une xamanteni mom moom la ba tendance bi moy lan moy li fi am depuis 2012 ba 2022 24 sénégalais yi nenañ nak lol doyna légui ñom fégal nañ lenen lu bess lañu bëgg et que lol motax ñu fas yéene suñu pour sénégalais à partir du 25 février 2024. d'accord alors ci ci ci s'en ay euh, su ngeen di décrire s'en bop un peu les